site d'information Cine TV nekkee fi ci diwanu Fatick un leen lu bees tak plus lu jëm ci walu sport culture éducation santé politique ci politique wala sax information ñu len di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene da top top plus lu jëm ci walu actualité Cine TV nekk qu'un ci diwanu Fatick togal fi région bu Fatick ak Sénégal Cine TV joko dial dem ki ñu war a waxat nag nga xam ne bu ne woon waaw waaw la bu ne déet déet la bu teew te jiitaloon sax déjà kenn koo xam ne moo ko teewal war nañoo mun a rafetlu teewaayam foofu te xam ne gëdd bi ñu jox bés bi moom jox na ko ko pour ne pas prendre trop de temps dinañ jox kàddu gi am monsieur waa Kër Umar maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam mangé ngi nuyu chef de village di nuyu imam di nuyu population bi yëpp di leen jaale dëj yi nga xam ne jotoon na fee am mooy bu Mamadou Ndiaye di ndaw ci dëkk bi di ànd ak ñun di liggéey ak ñun di ko saalif njaay ak ay mbokkam yi yëpp di ko jaale aussi sama troisième adjoint au maire ndax mbokkam la doomam la di jaale aussi ki nga xam ne conseiller municipal la mu nekk fii ci kër Umar muy Penda Diop mu ñàkk yaayam yàggul ñu ngi koy jaale yal na ko yàlla xaaree àjjana tey nag journée de la thème bi agent Mbaye mi ngi fii maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu C euh, CPDT SEC nga xam ne moom moo yor CPDT bi bu Djilor ngeen jël nuyoo bi yëggale ma ko ci sous xam naa xat-xat bee ko jàpp ndax aussi yëg nañu euh, démb décret yi nga xam ne wàcc na ci région bi moo xam gouverneur la moo xam préfet bu département bu Foundiougne moo xam sous-préfet bu Djilor bu Niodior yàlla def na seen mission dafa jeex ci département Foundiougne ñu war a dem feneen ñu ñaanal leen fa ñu jëm yan na leen gënal fii te nañ fa amee promotion promotion boo xam ne dinañ ko yëg ci seeni liggéey ci seeni poste ak seeni njaboot ndax aussi depuis bi ñu leen affecté fii ba tey jii nii dara yàqul dara ñaawul ci seeni liggéey donc ñoo ngi leen di sant bu baax di sant ñi nga xam ne ñoom ñoo initié journée de l'arbre ngeen may ma rek ma seppi ci ñëpp duma ma mën a wax ci ñëpp mais ma seppi ci quelques personnes muy grand Aliou Loum nga xam ne xam naa ko yàgg na xam naa pas-pasam xam naa expérience am yi nga xam ne am na ko ci niveau international mu dellu si di ko partager ak ñun ci agro agroécologie loolu ñun dañ ci sant yàlla ndax lu tubaab yi wax naan euh, bonne pratique yi naanaam li mu jàng ci bitim réew ci liggéeyam mu gën a rafet moom la nekk di ko séddoo ak ñun yal na la yàlla fay Euh, sama grand bi aussi Daouda ñëpp xam nañ sa taxawaay ci département bi ci commune Mbam euh, rafet na lool di nuyu aussi Thiam caam bi nga xam ne moo yor di Taes di nuyu ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci kuréel bi moo tax ma tàllali muy Cordit muy CNCR muy RAER muy Agri Sud di nuyu ñepp ñi nga xamne ne tudduma leen te sen loxo dugu ci journée de l'arbre bi journée de l'arbre euh yag nañ ko organiser au Sénégal waye ren dafa am touche particulière ndax président de la république Basirou Diomaye Fay mo jël initiative indi benen taxaway ci li jëm ci journée de l'arbre mu boole ko ci programme bi mu tuddee setal sunu réew donc muy ñaari programme yoo xam ne war nañ ti am njàngat benn bi dafay defar tubaab yi lii ne naan cadre de vie dëkkuwaay mu set dëkkuwaay bi mën a neex a dëkk pour mu set gën a neex a dëkk foog aussi gàncax bi aalam bi ñu mën ko naatal donc yéen ci ngeen di yëngu muy agroécologie agroécologie nag képp ku ko xam war nga xam ne ci njeextalu jamono bi wala ci fi ñu toll ci jamono bi loolu moo xew maanaam il faut ñu bay il faut ñu jàmbat garab il faut ñu naatal alam bi di ci dund di ci profito pour que yeneen génération yi bu ñu ñëwee duñ fi fekk désert loolu responsabilité bi ñun la war ndax aussi jilor dafa bokk ci environnement boo xam dafa fragile pour ne pas dire vulnérable ndax jilor li tubaab yi di wax presqu'île Djilor c'est une presqu'île maanaam géej moo ko wër li ko géej bi wër noonu dafa am zone yoo xam dafa am dafa une zone de cuvette manam, fofu soufsi dafa souffert trop niveau bi mu am zone dafa un fi xawa a côté bobu la Il bo len setlo bi ngeen di ñew gis ngeen li wër tan bi presque parce que dafa am li la salinisation des terres fay avancer xorom bi avancer gis ngeen fan yi ci yoon la daawul am mu ngi am mooy nit ñaa ngi génne xorom bi ci wetu tali bi di ko jóor di ko jaay sama benn man daf may naan xorom moo nekk loo xam ne lu doy waar la saa yu bëree ci dëkk pour naatal ko day jafe ndax indicateur la sécheresse la indicateur avanté avancé de sol euh, sel la loolu nag mënuma ko tekki ci wolof lan mooy indicateur maanaam liy firnde ne euh, xorom bi mi ngi avancer mi ngi bari mi ngi commencer yak nit ñi seeni gantax ak seeni tool donc tay ji ni bo leen jëlé décision ngeen choisir cœur Umar pour lancer fa journée bi tenir fi journée bi ñepp war ci dugal seen loxo man ma ci wara a lolu motax ma sama adjoint au maire premier adjoint au maire pour mu ñew téwel ma ndax dama am conseil municipal comme calendrier républicain la mako changer waaye fexe naa ba ba mu jeexee ma ñëw teew si fii man ci sama bopp ma leen ci sant vraiment ci temps parole bi ngeen ma jox ndax moom bu waxoon rek doy mais seetoo leen loolu gën ngeen ko yaatal waa dëkk bi nag balaa may daaneel li ma leen di sant mooy li tubaab yi wax buñ la tànnee c'est pas fortuit maanaam tànnuñ la ci neen bu ñu tànnee kër Umar parce que dañu yaakaar ne garab yi ñu indi nii suñ ko sampee dina mën a continuer sax ci kaw loolu dama bëgg borom kër gu ne wala xale bu góor bu ne wala xale bu jigéen bu ne mu parrainel boppam benn garab nga xam ne garab boobu moom daf koy toppatoo du nangu dara yàq ko du nangu mu ñàkk ndox du ñangu nangu mu ñàkk fumier pour que garab bi mën a continuer di dund ndax bu ëllëgee waa écologie bi nga xam ne ñoom ñoo fi teew tey programme bi mën a dellu si gis njeextal ci li nga xam ne ñoom lañ leen defal ndax mango yi xam nañ ne wax dëgg yàlla seeni njëriñ la agrumes yi ma gis aussi seeni njëriñ la arbre ombragé yi tamit seeni njëriñ la d'autant plus que gis naa aussi bougainvillier nga am ne arbre décoratif la ombragé la décoratif la te ku ci nekk bëgg nga sa dëkk mu rafet mu taaw jox nañ leen occasion pour que seen dëkk rafet taaru jox nañ ñu occasion pour que Djilor rafet taaru nañ leen sant delloo leen njukkal delloo njukkal aussi seen gan yi ngeen àndal mënuma identifier ban programme lañ bokk wante ngeen nuyul ma leen ndax aussi comme kàllaama bi nga xam ne moom la gën a dégg wolof la moo tax ma lakk wolof mais ngeen jottalil ma leen sama nuyo sama sant sama jaajëfal maa ngi leen di sante di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah voilà monsieur le maire merci wax ji rafet na taaru na aussi liñ doon xaar gis nañ je pense que dañuy wax ne la journée de l'arbre ne doit pas avoir euh, une coloration politique mais c'était une bu doon rencontre la booba ma am lu ma wax ci moom ni mu waxee ci man mais il va me comprendre te xam ne li ñu dajale c'est purement technique mais nag à dire que ne aussi li ñu gis ci moom ba tànn Kër Omar tànn Djilor wane na ko te mu ngi koy dundee mu ngi koy dundeek ñun xëy na on aura d'autres ci yeneen i rencontre yoo xam ne lu ma fa neex wax mais lu tey li dañ ma solal ay œillères fii ngay xool foofu rek lay xool ñu ngi gërëm di sant Aliou lu mu nga gërëm sànq nag ci weti kii rakkam la <laughs> donc yaakaar naa ne bu ñu leen gërëmee rek c'est toute la famille on vous remercie merci beaucoup ci taxawaay bi ñu ngi jax kàddu bi kii représenté aussi la DITAYEL ah c'est madame Fatou Cissé <laughs> Ya, ah def na jaloore d' accord yàgg na ci ok ak bon jaajëf ah wa kay wa kay monsieur le maire merci salaamaaleykum wa keur Omar ma ngi nuyu ñi fi nek ñep goor jigen mag ak ndaw di jital ci nuyo bi imam di ci tek borom dekk ak notable yi nga xamne ñoo ngi fii Omar waaye nag di nuyu def benn nuyoo spécial monsieur le maire ndax olof Ndiaye def na lu yàgg dëgg la muy nit ku baax ku am kóllëre koo xamante ni bu la xasee xam rek jeex na macha allah comme dañ na duñ fi wax waxu politique waaye nag boo gisee lu baax itam nit ni mu mel aussi wax ko wàññiwul dara. donc euh, ñuy wax tey ci bis bi ñu wax ci ditaayel parce que ditaayel dafa nekk kuréel boo xam ne dafa nekk dynamique la transition écologie dañoo nekkoon ci gox yi muy département de Foundiougne waaye ku nekk nekk ci sa gox di liggéey ci agroécologie waaye ci sa côté ñii ñoo ngi Mbam ñii ñoo ngi jiloor ñii ñoo ngi si yeneen dëkk yi ñii ñoo ngi côté Toubacouta yeneen daal ba ay kër Samba Gueye feneen waaye ku nekk rek danga nekkoon ci sa ruq ñu ne nag pour ñu dooleel agroécologie parce que gis nañ ne mbay mu sell agroécologie bu ñu ko doon tekki mooy mbay mu sell la mbay mi nga xam ne moom la suñu maam yi doon bay amul amul engrais euh, tubaab bi maanaam lépp loo xamante ni lu naturel la rek moo si nekk nga xam ne day aar suñu wér-gu-yaram aar aussi suñu alam ñu ne nag ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci loolu yëpp nañu dajaloo nekk si benn kuréel di xàccandoo di dóorandoo loolu moo indi di tayel waaye balaa di tayel di am sax am na au niveau national moo tax mu nekk di loo gis nag dafa am ñoo xam ne ñoo koy gën a ñoo koy samp taxawal waaye bi ñu ko sampee dafa am ñu ci nekk muy les acteurs et les actrices ñun nag man Fatou Cissé laa tudd maa ngi dëkk Passy maa ngi nuyu Ousmane yow yàgg nañu bu yàgg yàgg yàgg seq nañu liggéey yu bari léegi nag di liggéey si kuréel bu ñuy wax CNCR CNCR aussi foog naa ñu bari xam nañ ko ci wàllu baykat nappkat ak sàmmkat muy liggéey ci 14 régions Sénégal yëpp am vingt 28 fédérations. nekk ci loo xamante ni daal ci wàllu mbay la mbay boo xamante ni avec grand A léegi nag ci loolu biñ koy taxawalee ñi nga xam ne ñoo si gën a nekk parce que lu taxaw aussi day am ñu ciy génnee seen koppar pour mu taxaw ñu ànd ak Agri Sud biñ koy samp keroog Agri Sud nga fa CNCR ak waa ENDA ñoo jëkk a taxaw ñu am initiative ne lu ñuy tasaaroo te ñu bokk lenn lu ñuy def war nañoo mën a ànd ñu taxawalee ko sa Toubacouta bañ koy taxawal sax sous ñëw na yónnee na aussi ndawam bi ñu demee na ñu identifier mais jeexul ku bëgg a bokk ci détail bi aussi parce que bi ñu identifier ñu ñu xam rek la ñu la ñu identifier ñu identifier 40 OP yoo xam ne ñu ngi nekk li ci ëpp nag arrondissement Toubacouta la te xam naa ne arrondissement jiloor aussi am na seen benn chaîne télé bu ma gis taaye ñu doon def yëngutu ci wàllu agroécologie donc ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci agroécologie yëpp mën nañu ñëw bokk ci kuréel gi ndax kuréel gi tëjuwul. Euh, beaucoup salaamaaleykum euh, voilà ñu ngi leen di euh, yéen ñëpp ñi fi toog kenn ku nekk ci turam ak santam man maa ngi tudd Papa Ndiaga nekk responsable benn projet bu ñu strategic partnership for agroecology and climate justice euh, ci Action Aid Sénégal euh, biñ ñuy intervenir nak ci ñetti région Tamba Kédougou euh, at fii si Fatick ci Fatick ñi ngi nekk Djilor à travers notre partenaire APROFES ñi ngi nekk aussi euh, donc comme nima ko waxé rek projet bi projet agroécologie là. Il yi sen yenen partenaires yi dont agrisud Sud ak bu fatik euh ñuy célébrer agroécologie ñun aussi dañoo ñew duggal ci suñ loxo pour mener l'activité. Si activité bi euh, ci kaw lolu juste di rappeler sur tout ce qui est agroécologie donc déjà am ben objectif boo xamante ni stratégique boo xamante ni ni question agroécologique bi nga xamante ne appuyé na tey mise en œuvre activité bini. nii Action aide la nekk nekk projet boo xamante ni sur ñetti at lañ ko mettre en œuvre Fils si Djilor def nañ ci ay activités yu bari def nañ ci formation appuyé nañ fi ay euh, réaménagement de périmètre maraîcher campagne sur l'agroécologie euh, bataille dernièrement semaine passée def activité c'est en lien avec euh, la production euh, avec les produits les produits les produits bio les traitements bio donc si Lolo, je remercier aussi ñep ñi nga ni agriculture conventionnelle bi lim euh, ci jaww ji dafa bëri li nga xamanteni ne ni en terme de dépendance avec chereté produits chimiques avec aussi sol yi nga xamanteni ni ne ni ils deviennent de plus en plus pauvres donc il faut que ñu am ay alternatives yo xamanteni ni ne ni foofu la dem ci alternative yoy nonu fofu lañu ñuy agroécologie euh fi détaillé ñi ngi fi donc ñun ñi ngi travailler aussi à détaillé surtout Tamba comme on est basé à Tamba euh, dans les mois à venir nous allons mettre en place des sont Kédougou donc à travers une caravane de sensibilisation c'est une caravane de sensibilisation nationale Nous avons une Action et nous porter donc nous ngi ici ci remercions euh, les ñi remercier partenaires du fi euh, surtout à bi nga nous appuie ñoo ñuy pour mise en œuvre projet à travers l'AI

a ah, dañ koy ñaanal yàlla lépp lu yàlla wax ci yiwu garab yàlla na ko fekk aljana firdawsi may ñaan sama bopp di ñaan ñëpp ñi dëkk ci village bi ak ñi gane si ñëpp jëmbatal ko garab toppatoo ko suuxat ko ba mu màgg am njëriñ ci lii nga xam ne mooy jëmbat garab bi ñu war a moom mu yéene woon ko te fekkewu ko nañ ko def ci turam te kon amuñu droit échoué Euh, bu lolou wesso dañuy gëreum ki nga Jean Ndiaye sama grand frère moy point focal du réseau national des écosystèmes Sénégal ci Thiadiaye commune Thiadiaye waye xolam ndax c'est la deuxième fois mu ñuy indi il y a de cela deux ans ñewon nañu jëlee ay ay ay ay garab be gambi mu and ak ñun ñu ñew ko wa région agroécologique euh, donc bu euh, Foundiougne ren mooy deuxième fois am yaakaar ne garab yooyu ñu jëmbatoon mi ngi amal njëriñ euh, askan wi kon Jean euh, merci ci collaboration bi kii di suñu point focal ci commune Djilo Saloum ma bëgg ñëpp xam ko muy Boubacar Ndong anamu voilà jógal Boubacar Ndong kon mooy suñu point focal képp koo xam ne bëgg na jokkoo ak ñun rek bu jokkoo ak euh, Boubacar Ndong incha allah Euh, dana fexe jot ci ñun am nañu euh, point focal régional moy inspecteur Aliou Ndour moy directeur des études du centre régional de formation des personnels de l'éducation CRFPE ex FI euh, waroon na fi tew mais dafa am empêchement dernière minute motax andul ak ñun euh xolam tew na fii monsieur le maire bo fàttale ko ñi ngi xamanté ci foire bu Kaolack fika ka ñu waxtaan lu yaatu

national ci wàllu de l'élevage en particulier sur les bonnes pratiques agroécologiques former tamit les huit régions concernées au niveau de Kaolack kon yaakaar naa suñu loxo mi ngi ci biir ñu leen di suñu ne au profit du Sénégal. garab yii nag responsabilité teg ko fii Dao, daw mënuñoo làqatu bu béy ñëwee vous bu bu loolu suñu responsabilité ñun ñi nga xam ne ñoo leen fa ñoo ko fa teg te protégé wuñ ko moo tax damay insister foofu ndax même bu dee benn garab wala ñaar la ñu mën a protéger nañu yem foofu be keroog ñuy mën a protéger yeneen bu ko defee ñu denc garab yi ba keroog la li ñuy am loo xam ne mun nañu leen ko aare ñuy def par ndànk-ndànk rek parce que jëmbatandoo téeméeri garab te duñ ko mën a protéger du am njëriñ. Euh, xana rek ñaaxaate la rek ñaax ko sama bopp ñaax ko ñëpp. salaamaaleykum mbooloo mi euh, maa ngi tudd Souleymane di représenté fii mouvement citoyen Sénégal 7 vert bàyyeekoo Mbour euh, nekk en même temps responsable cellule éducation et sensibilisation bu mouvement bi nekkaat en même temps du mouvement Sokone Sept et vert. donc Kër Omar war nga fexe ba bép garab buñ fi jëmbat nga fexe bu mag ba yalla tas ko ci yiw bi yalla tas ñu ci yiw garab yiñ fi waja jëmbat donc euh, di remercier partenaire yépp suma limé damay joom mais ma ngi remercier tous les verts parce que ñun ñëpp mën na wax ni environnement mo ñu bolé environnement mo ñu tax fi ci bép organisme bobok, bok li tax tay couleur bi wane nako muy verdure muy couleuru naataange mu nekk encore couleuru diine sama mbokk jullit yi. mën naa ne jamono moo dox sax ba léegi connexion boobu amatul mais bu njëkk suñu maam yi dafa am lu leen boole woon ak environnement bi lépp duñ daan def dara te tàgguwuñu environnement bi même bu ñuy dagg garab sax am na nuñ doon doxalee ak moom am na ay procédures yu ñu doon def pour jëfandikoo environnement boobu loolu moo doon tax dëkk bi naat. donc di ñaanaat ñun ñëpp ñu bàyyiwaat loolu xel delluwaat ci environnement bi joxaat garab joxaat gàncax gi cër bi mu moom mooy di ko jëmbat di ko aar di ko toppatoo. Euh, bu loolu weesee tamit ma ñëwoon fii parce que si suñuy activité fépp fu ñu mouvement fépp fu ñu association woo ci cadre environnement dañuy teew. Euh, barki démb ñu ngi woon Njagañaaw ak euh, le sergent Massali ak euh, madame Diouf sous préfet wax deug def nañ fa reboisement bo xamni euh nek na reboisement bu muju ay moy tax tamit suñuy ndaw buñu dajé fep fuñu joggé ci Sénégal mën échanger ci environnement mën échanger ci agroécologie bi mën échanger ci enjeu changement climatique ci ñuy jëm ni donc du 3 au 7 septembre à Sokone amnañu nañu benn camp té ñu ngi ci wo bép partenaire principe bi mo nek région bu nek commune bu mën ci jeunes yo leen mën a ñu Sokone ñu dalal leen fa fan mangrove bi dinañu reboiser zone côtière 6 km, 100 bi ba tamit def ay ay partage yo xamni dinañ ko bolé ndax fiñuy bayé ko du ku ci sa gox nga ko fa euh, euh, di leen wax di remercier merci beaucoup comme ñoom ñun ko waxé ñu ngi jalé ki nga xamné mo fi joggé ñu ngi jalé famille jalé ko population bi yépp jalé ko maire bi nga xamné mom mom euh, également Djilor man nak xamna né mom sama rôle ci journée bi moy ma présenter touti euh, le réseau des agroécologistes de la région de Fatick euh, réseau des agroécologistes de la région de Fatigue, comme moo organisé woon ci journée bi

réseau bi dafa am ay organes yo xamné ñom ñoko sax organes yi moy c'est les organes de fonctionnement association BOGIS gis amna ay organes organes yi l'assemblée générale le bureau le bureau le conseil d'administration ou le comité d'administration ak ay commission ak le commissariat ñu gisoon xorom si dafa commencé won gagner souf si ensuite li wax agroécologie kenn xamu ko dans la région de Fatik parce que terme bu bees la donc mënuñ ko utiliser mënuñ ko xam ensuite ñu gis ne également Fatik xale yi fa nekkoon ñu ngi doon préférer dem ci grande ville yi Dakar Kaolack ak yeneen au lieu ñu toog seen dëkk dañu dem wuti li nga xam ne moom la ñu yaakaar ne nañ ko mën a amee donc raison yu mel noonu moo taxoon ñu ne xaaral ñu essayer créer réseau bi bon mais réseau bi c'est également mu c'est que de dafa mon mission Ségolène Royale, mu ànd ak ñoom ñu Sénégal conseil régional de Fatick. moom vraiment néxon nako Nous mu wax président conseil régional Fatick né li il faut que nous law ci euh, région bi ci la conseil président conseil régional Fatick Initié benn programme bu ñu wax un programme de bourses tremplin pour l'emploi programme boo xam ne dafa doon financer ndaw yi ak jigéen yi ci financement boobu ñi nga xam ne dañu choisiroon maraîchage moom la ñu seppi woon jël ko yóbbu ko formation à Kaydara bu ñu leen formé ba pare ñoom ñu ñib si ku nekk ñibbi ak artisanat mais ñoom ci boppam balaa ñu quitté dara ñoom dañu ne woon jarul formation bi dong yem ci suñu diggante mais formation bi war na mën a dem ba fépp fi nga xam ne yaakaar nañ ko au niveau de la région de Fatick. ci la wax ne donc nañu toog ñu def benn association association bi ñu tuddee ko réseau des agroécologistes de la région de Fatick. Euh, Thiam wax ñu ne détail boobu wax ñu ne comme réseau bi yéen am ngeen expérience ci reboisement reboisement ren bi jël leen ko ngeen xool fan leen ko mën a defee donc ñu jël ko xool fu ñu ko mën a defee ñu ne war nañ ko mën a defee à Kër Omar moo tax ñu defee ko fii ren. donc ci activité de kii reboisement boobu bu ñu jógee ci activité de reboisement bi ah, moo bëgg leen wax ne également réseau bi dafa am ay perspectives perspectives yi mooy balaa may dem ci perspective yi sax encadrement laa bëggoon wax encadrement yi boo gisee réseau bi université Sine Saloum mu ngi nekk également collège privé Monseigneur Ndione de Thiès ak ñi nga xam ne ñoom ay privé lañu ak ay groupement de femmes dañuy solliciter réseau bi pour ñu encadrer leen defal leen ren particularité bi ñu am mooy dañu dafa am benn 17 élèves yoo xam ne ñu ngi woon mbam ñu jël leen di leen former ñu def ay activités lucratives te li taxoon ñu def loolu mooy école bu ubbee ñu bañ a laaj seen parents construire kii euh, fourniture wala kii élèves yooyu bu ñu paree ak li ñu doon liggéey jaay nañ ko Nous avons ñoo fayal seen bopp euh, fourniture ak coopérative dañu nous il faut ñu suñu collaboration avec les localités les autorités locales administratives dañu naxone aussi né il faut que ñu def stratégie qui xamné ça nous permet ñu am le maximum de membres dans toute la région légui voudrais jéxal ma juste rek remercier quelques personnalités voilà quelques organisations qui ont été. en premier lieu c'est le sous-préfet comme vous le savez, il a été très disponible à chaque fois que nous demee daf recevoir Nous ngi remercier également le maire de la commune euh, de Gilor, euh, M. Sano euh, compte tenu de la première fois que nous ñu recevoir woon ci biroom ren aussi qui mu Nous ñun remercier surtout Agri Sud merci beaucoup

di la population de Kor Omar mais aussi de remercier et féliciter les gens qui ont initié journée bii journée de l'arbre Je nañ wax ni sax prolongement parce que le lancement a été fait depuis le 1 dimanche du mois d'août nous tombé avec le 4 semaine passée au niveau national je pense que nous avons fait ñëpp nañ lancement bi lancement gis nañ taxawaay bi nga sénégalais am tey bis bi prolongement parce que wax période bi ñu toll période jëmbat garab Fenap, ku xam c'est la fédération nationale pour l'agriculture biologique dans le cadre du projet CACEWA pour la collecte et la diffusion des connaissances liées à l'agriculture écologique et biologique kon je pense que les bu nous ñun identifié parce que dafa doon loo xam euh, euh, euh, sensibilisation la wala prise de conscience la bo xamni tay dafa jot pour que kep kuy yëngatu ci lo xamni walu alam la nga am prise de conscience bobu am ci no ci taxawé ba def bay ci sa waar li war mais dama ci sukkandiku pour tëkkale ko touti ak thème bi nga xamni ni moom lañu choisir parce que suma ma ci sukkandiku agriculture écologique stratégie la bo xamni dañuy permettre ñu dem ba momal li nga xamni ni lañuy dundé suñu bop ba mën ko taxawal et je pense que thème mu tey bi là lay wax que ni le rôle du reboisement pour la souveraineté alimentaire et le développement économique. loolu noonu la souveraineté alimentaire une stratégie wala politique. C'est ñun ni ñuy jumbale ni ñuy jëmbale maanaam ni ñuy bayee wala ni ñuy taxawoo suñu alam loolu la agriculture écologique di wane. dem bay les limites de l'agriculture conventionnelle te képp ku fi teew tey ci agriculture conventionnelle nga ne Kër Omar gi ñi fiy bay ci agriculture conventionnelle lañ ne est-ce que loolu day méngoo ak li nga xam ni moom lañ mooy sunu politique du moom lañ bëgg du benn parce que agriculture conventionnelle moom moo tax tey ñuy dund nooteel nooteel bi ñuy dund mooy lan yow baykat bi nekk fii tey pour nga bay da ngay xaar état mu indi engrais dëgg la wala du dëgg pour nga bay état bi day xaar engrais biy jóge bitim réew mu ñëw mu mën ko subventionné jox la ko est-ce que loolu buñ ci sukkandikoo dañuy am leen loo xam ne ñoom ñoo koy moomal suñu bopp alimentaire kon donc souveraineté alimentaire boobu fi muy commencé mooy que ni ñun li ñuy prôné mu doon loo xam ne ñun dañ koy jëmbal ci suñu réew. foofu lay commencé mooy ñun lépp loo xam ne mooy suñu source d' alimentation mu doon àll bi mu doon mbay bi ñu am ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu mucc ayib la mais taxawaay bu mën a yàgg la bu am durabilité. mais su ma duggee réellement ci thème bi parce que bëgguma guddal da ngeen maa jël au dépourvu bi parce que je pense que sooy jël panéliste da nga koy informer à l' avant. mais dinaa ci dugg trop mais damay méngale un peu tey sunu maam buñ daan soxla dara ci àll bi jarul ñuy dox ay kilomètres li daan génnee ci àll bi kenn xamul lu toll. si mën naa ko si tey sunu maam dañ daan génn seen kër dagg si démb ba doyal dem jaay ko am ci koom jëfandikoo lenn sunu maam dañ daan dem seen ginnaaw kër dagg sump est-ce que loolu amati na mango sunu maam dañ ko doon am. bay am luñ desal loo xam ne nag yi dañ koy dundee est-ce que loolu gisati nañ kon je pense que loolu lépp bu demee ba amatul c'est parce que am na taxawaay bu nit ñi am te waruñu ko woon a am kon am na loo xam ni dafa jóge ci nit ñi te ci loolu laay sukkandiku pour def benn sensibilisation mooy que ni ñun taxawaay bi ñu am jëmale ko ci suñu wàllu alam jëmale ko ci suñu wàllu garab yi moom moo tax tey ñuy dund lii. seen caawa bi kër Omar yéen ko dagg man je est-ce que loolu bokk na ci liy naatal alam bi kon tey li nga xam ni moom mooy sunu alam kanam dafa njëkkee ci ñun nit ñi nga xam ni dañu war a taxawaay bu ñu war a am bi pour faj bu ne xam na ni garab day faj loolu mooy njariñu garab mais soo koy dindi nu la neex nga koy dindee bu ëllëgee boo demee ba soxlaa ko garab boobu doo doo ko fig am na ci ñu ni garabu ven ñemewuñ ko jëmbat ci seen biir tool parce que boo fa jëmbatee fu waay mënti nekk dina dugg ci biir tool pour dindi écorce bi pour fajoo kon ñun xam nañ lan mooy njariñu garab mais dañ koy utiliser ñu mu c'est normal nag li indi li li waral nak ñu wara a taxawat taxawaat moy que ni dañu wara xam njariñ boobu warul doon njariñu tay mais dafa war doon njariñu tey ak ëlëk lolu moy agriculture écologique manam transition la bo xamni dañuy permettre ñu mëna sukkandiku ci li ñu am jëfandikoo ko mais jëfandikoo bu mucc ay bu am jeexintal parce que looy jëfandikoo tey tey mu faj la tey te bu subaa doo ko gis loolu souveraineté mënu fa am parce que bu subaa da ngay demaat beneen région uddi ko fa wala nga demaat beneen pays uddi ko fa loolu laa ni woon dama ciy taxaw pour ëmb ëmb am na yeneen phénomène yoo xam ne tamit loolu ñu taxawaay moom moo ko jur lu ci mel ni tey fii ñu takk kër Omar boo yelloo juróom-ñaari at ci ginnaaw boo fi toogaan fu la neex ngay toog parce que ci suufu garab ngay toog tàngaay bii am fii du ñu sonal mais taxawaay bu ñu fi taxaw ba jëlee fi garab yooyu moom moo tax ñuy dund tey canicule yi ñuy dund tàngaay bi am kër Omar boo delluwaatoon ci ginnaaw wala sunu maam yi nga xam ne ñi ngi dund ba léegi ñu teg ko dañ naan la lii mosu fi woon a am ñi mooy que ni taxawaay bi nga xam ne sunu maam dañ ko amoon ci wàllu jëmmal garab ñu jëmmal ko mais ci jëmmal boo xam ne aussi dañu ciy taxawu pour mën a am loo xam ne dañ koy dundee ci sunu wàllu bopp mooy que ni dañuy jëmbat ay garab yoo xam ni ay garabu meññeef la yoo xam ni dinañ ko mën a jëfandikoo parce que lu tax ñu ni garab meññeef dafa am solo ci souveraineté alimentaire ak le développement économique bu ñu jëlee exemple garab bi nga xam ne moom lañ jël tey comparé muy mango mango tey njariñu mango wax ko sax ci kër Omar je que yàq la parce que ku ko amul tey di nga dem bu période bi jotee di nga dem jëndi di nga dem jënd mango pour jëfandikoo fruit bi am na ci suñu jigéen ñoo xam ne bu période bi jotee mooy doon seen activité économique moom la ñuy jël dem jaay ko pour am ci koom-koom am na ci ñoo xam ne tey bu la dara dalee balaa ngay génn fii dañ naan la demal comme ni ko waagaan waxee sànq demal nga jël xobu mango nga fajoo kon am na ñett ñetti aspect yoo xam ne da ciy feeñ mooy que ni di nga ci am koom-koom di nga ci am loo dundee te am faju boobu noonu duñ ci aventuré wu trop mais am na ñu ci seen xam-xam màcc trop trop trop que ni amul benn parti boo xam ne da koy jël ci garab yooyu mango rek laa yem de mais mango bokk na sax ci li ci gën a ndaw am na yeneen garab yooyu maanaam muy écorce bi muy racine bi muy feuille lépp loo ci jël ci garab boobu day faj mais nag boo koy jëfandikoo ci faj da ngay dem ci ku xam-xamam màcc ci loolu mu wax la kat nii ak nii ak nii nga koy utiliser je pense que du ñu toog fii rek di wax ni day faj day faj day faj ba ku ne jóg dem jël ko mais da xam noo koy noo koy noo koy noo koy jëlee et je pense que loolu dama ni woon dama ci revenir at insister ci beneen affaire bi mooy que ni euh, jëmbat garab pour am ci koom-koom dafa am nuñ koy nu ci nu ma waxee nguur gi woote waxuñu rek fu la neex nga dem taxaw nga jëmbat fa garab tey kuy woote écologie ci sa tool war nga def ba garab yi nga xam ni dañuy meññ ñoom ñoo fay naat naat boobu nag njariñ bi mu am mooy que ni garab moo ñuy protéger contre les érosions maanaam ngelaw yu am doole yi nga xam ni dañuy ñëw ci sa tool yóbbaale suuf ferñeent bi nga xam ne dafa am njariñ ci tool bi parce que ku ne xam na ni li ëpp ci njariñ ci ferñeent mu ngi féete ci kaw ci suuf su ngelaw li amee doole bu ñëwee da koy yóbbaale bu ko yóbbaalee suuf soos day doodul dundati sa suuf si bu dundatul bu tàngaay bi gënee am doole day dee dem ba sax boo demee boo koy utiliser da nga koy utiliser ci suuf boo xam ne suuf bu am dooleel suuf buy dund la boo ko ci suuf buy dee koy gën a wala soo soo koy utiliser na nga ko utiliser de façon rationnelle woon sànq euh, c'est pas quelque chose loo xam dañ ko préparer dañ ñu jël lekk pour ñu waxtaan ci ak yéen waaye ku jël eaux et ni ko waxal ci njariñu garab je pense que wax nga ko ci li nga xam ne moom la bëgg et taxawaay biñ ci am moom la ñu bëgg ñëpp taxaw ci c'est pas parce que dañu sol tenue bi rek moo tax ñu bëgg garab mais tenue bi yokku na sax ci ñun lu ju la jëm ci loolu parce que tey ku bëggul garab mooy que ni yow bëggoo sa dund l'arbre est le de la vie sur terre kenn du ko naatable garab su amul ñun mënuñu def ci dun dun ci àdduna bi ñaari fan yu mat mënul nekk parce que li tax ñuy nooyi garab moo koy indi li ñuy dundee ci garab lay jóge liy defaraat ci sunu suuf ci garab lay jóge kon mënuñu fi nekk sans garab mais li li ñu ma bëggoon li ma bëggoon a insté mooy ni même yeneen ñi nga xam ni bokkuñ ci ñun parce que dañuy jàpp ni nit ñek ñi nga xam ne dañ fiy dund te duñu ay nit mala yeeg ay yooyu ñu dañuy soxla garab parce que garab la ñuy dundee tey pël yi ku mel ni kër ku mel ni kër Omar am nañ ay nag nag yooyu ci àll bi lañuy ñuy dundee tey pour ñu am sax lu ñu lekk ci àll bi dañuy dox lu sori kon donc bu ñu protéger àll boobu bu ñu jëmbatee yenn garab yi dinañu permettre dinañ am luñ dundee mais ñooñ ñi nga xam ne ci ñoom la ñu sukkandiku pour dund dinañ ci mën a jël pour jox leen ci. Euh, digresser un peu génn ci thème bi euh, loolu laa amoon pour yokk ko ci yeneen ku am peut-être benn question wala inquiétude boo xam ne mën nañ ci tontu aussi ñu ñëw ñu ñu tontu ci merci CFCPDT. voilà. ça fait presque une dizaine ñu ngi def ak moom amuñu mbub muñ ko jox amuñu lekk buñ ko jox amuñu naan buñ ko jox ñu ne nañu jël kayit. bind ci lo xamné à une attestation de remerciement pour service rendu euh, au réseau des agroécologistes de la région de Fatick. <laughs> Voilà, très rapidement aussi, euh, merci M. Mbouj. Tous nos remerciements à l'UETN et son équipe. Benenbi, bi, dañ koy remettre à une personne qui a fait une semaine di ko déggaale laajul per diem en l'occurrence Ndiaye ñu jël yow mi fi nekkal sous nga dimbale ñu remettre ñu voilà Jean Baptiste yal na la jikk yal nañ yàgg di jot yu mel noonu ak yi ko sut léegi dinañ jox nag ki nga xam ne moom la fi kilifa gi bàyyi mu clôturé dañ ne woon nag laajte nañ fan la repas bi toll ñu ne pare na monsieur Mbodj monsieur Wagan ak ñi fi des yëpp nee nañ repas bi na dama leen ne woon nag bu repas bi ñu def en euh, taxul ma maîtriser tout kii bi bu ñu paree ñu seet nu ñu def. di ko jaale borom dëkk bi di ko jaale waa dëkk bi yëpp mais aussi di ko jaale ki nga xamante ni si mooy conseil municipal si maire bi ñu ngi koy jaale bu baax a baax. Euh, di remercier ñi nga xamante ni si si turu ñoo fi jël kàddu vraiment seen intervention rafet na trop macha allah. di remercier aussi euh, sergent Mbaye agent eaux et forêts si vraiment thème bi nga développé fii euh, mu nekk thème bu am njariñ nga génne si nga wax si lu bari macha allah si sécurité alimentaire développement économique.

décrété chaque premier dimanche du mois d'août ci ren ji je pense que mu def euh, quarante et un euh, mu nekk euh, journée bi nga xamante ne si dañ koy fêté chaque année dans la l'arrondissement am na ñu ko jotoon a tey jii ak partenaires yi ñu ñëw fêté ko fii si Kër Omar. di indi si thème bu am solo ci sergent Mbaye traité ko macha allah ñu ngi la si remercier di la féliciter di la encourager bu baax a baax a baax. di wax aussi euh, importance bi nga si la am conseil des ministres le président de la république euh, son excellence monsieur Bassirou Dioma a rappelé sur l'impératif vraiment euh, de promouvoir un Sénégal vert rappelé que Fofu, ñaax gouvernement développement durable autour nag vraiment du développement des pépinières ndaxte balaa ngay jëmbat di nga def pépinière donc loolu yëpp ci conseil des ministres bi ñaax ci gouvernement bi ñu taxaw ci mais pour loolu am aussi tamit mu xamal leen ni loolu yëpp buñ koy def dañ ci impliquer d'abord les collectivités territoriales ñi nga xamante ci ñoom ñoo ci base bi aussi tamit gis na ni fofu aussi tamit dañ say impliquer les personnes techniques ñi nga xamanteni si ñooy agent aux et forêts yi dem nañ si bay wax sax di def ay recrutements spéciaux loolu yëpp démb président de la république wax naka fa projet boobu un Sénégal vert ñu am ko si voilà garab nag buñ ko waxee si olof mooy mooy médicament voilà man nañ ko wax garab nii mais tamit médicament dañ koy tuddee garab pour wan ni la garab donc day faj ti garab comme niñ ko waxee lépp loo si gis rek njariñ la boo jëlee xob bi njariñ la boo jëlee doom bi njariñ la boo jëlee branche yi njariñ la boo jëlee reen bi ñu koy wax racine aussi tamit njariñ la donc njariñ kese la garab am ti euh, suñuy aliwa sorewul suñuy njàng sorewul mais dégg nañ si ñu ni juróom-ñaar yi nga xamante ni si bu nit demee bokk na si jëmbat garab dañ koy continuer di ko defal yiw donc suñu mbokk bi nga xamante ni si moom jàpp nañ ni sax jot na reboiser ay garab jàpp nañ ni yiw boobu noonu ma koy fekk te ñu ngi ñaanal yàlla mu fekk ko foofu di ñaan yàlla mu jéggal ko te yërëm ko aussi garab mën nañ si am industrie pharmaceutique loolu je pense que euh, récemment rek si journée nationale de reboisement ku seetaan ministère de la santé de wàcc sur le terrain ànd ak équipe yi pour accompagner pour euh, ñaax nit ñi ci reboisement. ko lu am solo. ci aussi bu ñu jëlee màng wax dëgg yàlla mu nekk fruit bi nga xamante ni ci aussi mën nañ si am transformation. donc lépp rek pour wax ni importance bi journée bi am vraiment di si ci jaajëfal ñi nga xamante ni ci ñoo waral journée bi. di ci gërëm waa Agri Sud waa CNCR Cordit réseau des écoles citoyens Euh, Sénégal vert ak wa COPEP ñëpp ñing leen di remercier si sen téway si sen taxaway si développement vraiment projet yooyu yëpp nañ leen leen si sen taxaway dans l'arrondissement de Djilor donc ñuy profiter di leen nuyu surtout sous-préfet ñi ngi nuyu population bi yëpp di nuyu delu di nuyu waat monsieur le maire di nuyu son équipe di nuyu borom dëkk di nuyu aussi tamit représentant des jeunes yi nga xamante ne si doon na laaj parole mais protocole bi moo ko demee ñu ngi siy jégalu bu baax a baax. di nuyu aussi tamit représentant des femmes ñoom ñëpp bëggoon nañu wax mais euh, ni journée bi demee la vraiment di jaajëfal ñëpp di nuyu ñëpp di ñaan aussi tamit képp ku fi ñëwoon yàlla na yàlla defal la yiw mais aussi tamit nga delluwaat si jàmm fekk fa jàmm euh, di ziare ñëpp di yamale foofu kàddu bi di wax ni euh, je déclare. cette journée euh, nationale de l'art. Merci de votre aimable attention. Bienvenue. seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick indi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokkoo jàll